tudd Daouda maa ngi nuyu waa Mater TV yëpp di nuyu waa Wakaam yëpp di nuyu képp kuy sénégalais rek ak ñëpp daal maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax euh, waaw man ak yi nag franchement yàgg nañ parce que depuis bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi ci menuiserie waaw et mu nekk sama benn nijaay boo xam ne moom laa fi ñëwoon fekk si muy Njoogu Njaay waaw moom ci atelier laa nekk moom aussi moom ma jàngal métier bi ba ma mën ci li ma ci mën waaw aussi bi ma fa jógee yàlla def na aussi ma jaar si benn atelier bu naan naan Yankoba moom mu nekk camp gaz aussi moom it macha allah mu am lu ñu def si man lu bëree bëri. waaw suñu inspiration si menuisier moom franchement amul dara loo xam ne nii franchement loo ñu si jox rek ñun mën nañ ko defar dañuy defar euh, ay armoire dañuy defar ay lal lépp daal chambre à coucher complet salon lépp daal meuble TV lép loo bëgg daal ci menuiserie yi franchement trasat lépp daal on est prêt daal lépp loo ñu jox rek incha allah dañ koy defar. waaw esantool ni ne ñun local la ñuy defar. dañuy défar local dañuy défar aussi ay compte plaqué yu tudd plaqué laminé yo xamné day jógee en Europe mais bu ñëwé fii ñun ñokoy défar ba mu mel comme si que esantol nii mooy gën dëgër importé té et puis importé diko yobbu ci dara wa franchement té lépp qualité lay doon lépp qualité 100 lay doon mais nak xam nga esantol nii ñun importé yi moñu xawa sonal parce que franchement ñun dañ doon liggéey sans problème mais gars euh, état bi des fois dañuy jël ay chantier war ko jox ouvrier Sénégal yi xamné par exemple ñom ñi ngi à Sénégal mais duñ leen ko jox dañuy tepp dem Europe importer fofu ay importer té loolu aussi dañuy sonal ñun menuisier Sénégal yépp dañuy sonal waaw dañuy sonal ñun ñëpp franchement. une présente bi benn armoire la armoire coulissant mi ngi ni bo xamné da ngay buux rek c'est sa trois étagères oui en euh, fait bi aussi mi ngi ni mais bi aussi kiiwagul parce que dafa am benn porte bu nekk ci digi moy porte vitre bi xam après dina leen wan suñu photo yi bu paree ni muy pare carrément waaw bi aussi même chose mi ngi ni coulissant la da ngay buux rek mu dem mi ngi ni quoi waaw bi aussi lal bi la même chose c'est un lal capitonné euh, ñu décorer ko ak bande sans aluminium waaw mom aussi mi ngi ni capitonné lañ ko def décorer ko aluminium et tout euh, franchement lépp té aussi lal bu deuguer la gars yu bari dañ wax né non lal est-ce que buñ ko mais c'est lal bu deuguer lay nek quoi et puis 100 garanti mais ici même chose le mi ngi nii ouvrant trois étagères

waaw en fait maa ngi remercier ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rek franchement maa ngi maa ngi remercier euh, monsieur Charles fay moom franchement jàpp na ci affaire bu baax a baax a baax a baax or que bu ñëpp meloon ne moom moom franchement ñun duñu wax dara parce que moom mi ngi ñëw di jàppale doomu dëkk bi di jàppale doomu Wakaam di jàppale doomu sénégalais di jàpp doomu ñëpp franchement monsieur Charles Faye ñun amuñu fayam aussi di maa ngi remercier ñëpp ñëpp daal. di remercier sama papa di remercier sama yaay di remercier ñëpp samay ouvrier yi aussi ñu ngi si ñu ngi si jàpp 100 pour cent su ma demee damay jum mais daal maa ngi remercier ñëpp